délégation bi ñëw pour seet lan le Sénégal mën lan la ñu mën a Sénégal investir fi and nak ak suñu lëkkaloo ak suñu patronat bi ndax ñaari patronat rek ñoo mëna transformer Sénégal le développement international ñet rek ñokoy def moy état. Euh, secteur privé ak liñ woyé ONG tay nak gis na ñom ñëpp ñoo fi tew tey lool mo waral euh, tay dañ présenter nak opportunité Sénégal won leen ko Sénégal ci wéréu Afrique yi nekk Afrique de l'Ouest yëpp ñu ñoo leen ëpp opportunité ndax d'abord c'est un gouvernement jeune dafa nekk gouvernement bo xamné bonne gouvernance lay jital ci lépp li muy def ñettel bi dafa nekk Sénégal bo xamné pays bo xam dafa am pétrole ak gaz ak soufre ak phosphate loolu nak so xasee am ci réew mën nga tabax base agriculture mën nga tabax base industrie mën nga tabax base emploi donc liñu bëgg def moy fexé ba ñoom ñëpp ñu ñëw maintenant comprendre loolu lëkkaloo pour set nak liñu invest secteur yooyu bi nga xam aussi c'est très important ñu wax leen ko moy réew mi lepp lañ ko wara tabax liñu bëgg def moy def lu tolloo 45 zones industrielles manam département Sénégal bu nek suñu yéene moy tabax fa zone industrielle nga xam ay usine lay doon fixe xale yi tabax aussi li woy ay agropole manam soo da nga bëgg a defar réew il faut nga am politique euh, euh, euh, industrielle euh, c'est boo vertical manam fépp foo mango la na usine ken dotul exporte ay matières premières lu melni ni lu melni ay anacarde lu melni ay mango yoy lañu bëgg justement arrêter pousse plutôt transformation locale